mooy tënku waxtaan bi ci yaatal gi nag lañuy ñuy ñëwaat waaye tomb bi yépp loolu la mooy lii lañu ci diina may waaye fii lañu yemloo léegi-léeg nag mu jur ay coow yu yaatoo yaatu waaye li ëpp ci coow yi ñàkk xam rek moo koy waral ñenn ñi jànguñu di demee seen xel mu rafet ak li ñuy tuddee santiment ña ca des jàng nañu waaye dañoo am complexe wane dëgg-dëggi li yàlla wax ngir seen intérêt yi bopp képp nag <clears throat> ñoo xam nag intérêt ba lan la xaritoo gu jege laam ay privilège yoo yor laam yàlla daal a xam waaye li am solo mooy ab jullit bu dëkkee ku mu bokkulul diine loo mën a moytu ci lor ko na ko def loo mën a moytu ba doo ko lor na ko def lépp lum la lorit boo ko mënee muñ nga muñ ko te yàlla rekk tax waaye loo mën ci lu rafet ak teraanga nga defal ko te yàlla tax bu feebaree itam demal nga seeti ko bu dee séq ngeen seen xame yegg na ci xamante mu feebar demal nga seeti ko te boo amee teraanga yóbbul ko soo ko fekkee mu tëddit ñaanal ko yàlla yàlla may ko mu wér yàlla mayaat ko kàttan ba mu delluwaat ci sago su fekkee da nga yëg ni ci ay jafe-jafe la nekk jafe-jafe dund ñun ñëpp ko xam ñëppay na ci jafe-jafe moo xam ndax ci wàllu dund la wala ci xat-xatu jamono bu daanu ci kawam taxawal ci wetam dimbali ko ba mu dellu ci kàttan boo ko tanee ci liggéey it dimbali ko ca mu liggéey soo yëgee ne am na ku mu génnele àddina te séqi ngeen ko nga dem jaale ji ko massawu ko dëfal ko mu bés xolam te muñ xam ne yàllaa ko dogal su génnee àddina nag bàyyi ko giineem waaw lii la yàlla may lépp xañ la benn bii képp nga ne du am parce que lii problème lay doon su ko defee yooyu mbokk yi nañ ci bàyyiwaat xel bu baax ñu yem fi nu yàlla yemloo ci diineem ji defal teraanga boo mën dëkkal ak moom ci dëkkin wu rafet ku génn àddina ñu bàyyi la ak sa diine ku génn àddina ñu bàyyi la ak kenn waxula bul ko ñaanal waaye fii ak mi ngi dund loo xam ci lu baax ñaanal ko su génnee àddina bàyyi koog yàlla bàyyi koog la mu gëm loolu loolu maandute la ñun nag léegi-léeg li ñu ciy dal mooy dangay am ku la jege bokk leen diine santiment jàpp la nga bombardé règle yépp jéggi borne yépp topp lan sa santiment yow ak sa xalaatu bopp lu tax yàlla di tere nangam lu tax diine nanguwul nangam lu tax lu tax lu tax léegi-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy évoqué réew mi ñu dëkkee dañoo jaxasoo dañuy bokk famille dañuy bokk lépp ban réew ngay dem ñu ne la chrétien yaa nga féete ne la jullit yaa nga féete ne la juif yaa nga féete ne loolu amul ci àddina fi saxaaba yi yeggoon ci jege <laughs> mais ñun yegguñu fa ni saxaaba yi di dundee génn kër ngay dugg fekk fa jullit yi fekk fa chrétien yi kii di jullit papam du jullit wala kii papam du jullit te doomam du jullit amul gën a jege bu am te amul woon amul nii ñu yi ci sëy jegante ko ci famille bokkante ko deret lii moo mas a am dañ ñoo gënoon a respecté règles yi rek te respecté wuñ ko waaye jege ñaale bu ñuy wax moom amu fi naka jekki ñaale daa mës di am am ku bàyyam ne ci diine bii moom mu ne fële am ku doomam nekk fële moom mu ne fii te terewul daanuñu séq jàmm di séq teraanga di séq rafetal ku génn àddina ñu bàyyi laa ak sa diine loolu mooy maandute سبحانه وتعالى نينا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي القربى ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم sunu borom nee na yellul jaaduwul jekkul te santuñu yonent bi ak képp ku ànd ak moom ñuy jéggalul yàlla ginnaaw bi mu génnee àddina kuñ bokkul ak diine yàlla ko wax du waxu nit waxu yàlla la ku mu neex gëm ku mu neexul bul gëm ku ngeen bokkulul diine bu xasee génn àddina génne leen ci seen loxo te ba koog yàlla maandul ci mbiram mu ne walaw kaana uuli qurba donte ku la jege la jege mën na nekk ndey mën na nekk baay mën na nekk sa frère mën na nekk sa sœur mën na nekk dëkkandoo bu jege waaye terewul nga xam fi nga war a yem ku mu neex na nga def ko de waaye yàgg yàlla la su ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu amul benn relation ak cohabitation bi nga war a am ak ki nga xam ne bokkoo leen diine te ngeen dëkk dëkkin wu rafet man damay wax ne bokk na ci maandute sax même boo boo amoon sa doom mu nekk ci kër gi du jullit bokk ci beneen diine yàlla def mu génn àddina yow sa maandute war na yegg ci bu génne àddina nga bañ ko jullee bañ ko sang bañ ko sàng nga woo mbokkam yi ne leen kaay leen jël kii seen mbokk la parce que lii la gëmoon ñaanal leen ko ci loolu mooy maandute ñoom it ñu am maandute gi toll ni ku ñu am ci seen biir donte doom la te gëmul woon lañu ñu gëm diine lislaam la gëm mu génn àddina ñu teg ko fa woo ay mbokki jullitam ne leen kaay leen kii seen mbokk jullit seen diine la gëmoon suñu deret la gaa waaye lii ngeen di def lii la gëmoon ñaanal leen ko ci yàlla parce que nit li mu gëm moo koy jëriñ nit li mu gëm moo koy jëriñ waaye nit gëw ma woon lii mu génn àddina nga defal ko ko tooñ nga ko nit ku nekk li nga yaakaar ne ëllëg mooy sa sauvetage soo génnee àddina nañ la ko defal yaa xayit mu jeex lu yomb la ñaanal ma ci li ma gëmoon te nekkoon ci loolu mooy maandute maandute mooy nit ki li mu nekkoon te gëm ko su génnee àddina nga bàyyikook koog loolu loolu rek mooy logique gu lislaam amul leneen mooy ku nekk diine ja mu nekk gëm ko jàpp ne ëllëg lii mooy sama sauvetage yaa xayti bu génnee àddina bàyyi koog loolu wa illaa tooñ nga ko nag su ko defee loolu du xel mu rëy mu nit di jaay sama yërmande moo bare sama nangama bare lépp benn la ah, lépp benn la lu la tere boo jógee àjjuma bu dimanche nga dem église ah bàyyi seen caaxaan bu ne la yemal fii yemal fii bul egsi fii bul egsi fii léegi nag tey dem na ba débat boobu ñi jàngul sax ñoo ko gën di alimenté ba pare di laaj nag lan moo tax <laughs> lan moo tax li tax kay wax nañ la ko sa yoon nekku ci mooy la ngeen séqoon ci àddina te ngeen bokk ko gëm muy société bi ni muy doxee jëflante ngeen ko waaye nag am na lu mu gëmoon ci pas-pas jàpp ne loolu loolu moo koy sauver ëllëg mu ne ca lool sa maandute mooy nga bàyyi ko ak loolu donte ku la jege la loolu la alxuraan mun mu ne donte la jege la léegi nag ay nit mënees na koo jéem a taaw yi ba yëngal ci ay xole ki sentiment waaye lu tax duñu leen ñaanal lu tax ñu ñuy ñaanal lu tax nangam kenn waxula bu ko ñaanal de waaye fii mi ngi dund may nañ li yu pare yu ngeen mën a séq su génnee adina bayiko ko gëm su ëllëgee yàlla sét lu mu def ci jaamam ndax sunu borom dafa wax ni innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna numinu bi baadin wa nakfuru bi baadin wa yuriduuna an yattaqidu bayna dalika sabila sunu borom nee am na ci yéen ñoo xam ne dañoo weddi yàlla weddi yonentaam yemuñu ci bëgg a xàjjale yàlla kub yonentaam ne gëm naa yàlla mais gëmu yonent bi suñu borom ne loolu mënut a nekk wa yaquluuna nu'minu bi bi ba'd gëm nañu lii waaye gëmuñu lii waxuma ku ñu bokkulal diine yow en tant que jullit yow soo gëmul yonti yàlla Isa doo nekk jullit képp ku gëmul ne yonent bi yàlla moo ko yónni doo jullit soo gëmul ne yonti yàlla Muusa yàlla moo ko yónni doo jullit soo gëmul ne yonti yàlla Ibrahim yàllaa ko yónni doo jullit mboolem yenent yi ngay jàng yépp kenn kenn koo ci weddi weddi nga ñépp loolu la ñu alxuraan wax laa nu farriqu na ahadin min rusulihi min rusulihi kon ku weddi yonti yàlla Muhammad nit ñi continué na lépp benn la ba leen seen caaxaan yi na ku nekk nekk ci li nga nekk ku génn àddina ña ko séqal ñu ñaanal la ña nga xam ne la ngeen séqoon ci mbaax teraanga ñu ñëw jaale si la parce que jaale aada la jaale aada mooy nit ki génn àddina nga ñëw bokk ak moom tiis weeg naqar wi nga massawu ko loolu amul lien ak ñaan mooy ñu ngi leen di sigil ndigaale ñun noonu la jaale sigil ndigaale mu ne sigil sa wàll sigil ndigalé sigil sa wal yalla na leen may xolu muñ diw day ku bax la won wax deug yalla ñun day sekk nañu lu nekk ci terrain defal na man nangam defal na man nangam defal na koñ bi nangam defal na gox bi nangam defal na nangam defal lu loh lo xam nga wax ko ci wax deug yalla nit ku bax la ah dem nak mom fi lañ ko fekk adina ngi ni ñun ñep dañuy dem waye leen di ñaanal yalla mu may leen xolu muñ te wuutalal leen yam ca parce que ñooñu nga ko seqal ñu ngi dund ki génn àddina nag ñu ne bàyyi ko la mu jàkkaar lool bu yàlla ne bu ko def boo ko defee du am njëriñ te mën na laa jural ay duma lu tax du am njëriñ dama doon ciy toog di waxtaan ak benn mbokk ma def exprès jox ko ci benn misaal mu ne mais comme ñaan yi yëpp ci yàlla la jëm ñaan yëpp ci yàlla la jëm léegi nañu ñaan rek su dee yàlla naru ko jël ñu xam ne naru ko jël ma ne ko dama ragal ne ñàkk koo nar a jël moo tax mu ne la bu ko def ma jël benn numéro téléphone jox ko ne ko defal ma fii crédit moom numéro orange la yore ma jox ko benn numéro firi ma ne ko mayal ma ci numéro bii crédit mu ne ma mais loolu mënul nekk man ne ko lu tax mënul nekk mu ne parce que bokkuñu opérateur yu ñu nekk. ma ne ko loolu soxor la wala lan mu ne ma noo du soxor tëralin la rek tëralin la waaw lu tax yow boo nekkee ci opérateur bii ci téléphone sàngam ma nekk ci opérateur bii téléphone sàngam man mënuma laa may crédit mënoo moo may crédit te moo montant mën nañu wootante limite yaa ngi noonu lépp am limite lu tax duñ nangul yàlla limitam lu tax duñ nangul yàlla limitam te montant misaal yaa ngi ci àddina bu yooyu ñu di ci bàyyi xel donte nag am na ñoo xam ne moom diine ñoru leen seen bopp moo leen ñor xam nañ ko sax mën naa am mais ñoom seen yitte newul di tënku ci lii yàlla wax ñoom liñ bëgg la ñuy def te loolu bu amul woon suñu borom du wax ne ragal leen yàlla ni ko yàlla bëggee am na ñoo xam ne diine li leen ci arrangé loolu la ñuy def lu leen arrangé wul ñu teg ko fële ñenn ñi jànguñu dara dëgër fit mën a werante ñi ci des nag jàng nañu waaye sëriñ sopp daganal mooy koo xam ne lu mu bëgg rek wut ay ruq yum ko jaarale ba jéem koo daganal yàlla ñu yàlla musal ci xeet yu mel noonu ñu delluwaat ca la ñu tàmbalee woon mooy boo dëkkeel ko bokkul ak diine lépp lu war ci rafetal sa diggante ak moom def ko lu ngeen séq ci teraanga def ko su feebaree seeti ko bu amee dëj demal nga jaale ji ko waaye séqu leen ñaanalante ci nit ku génn àddina kii dund mën nga ko ñaanal su xasee génn àddina bàyyi kook moom santaane yàlla la du santaane doomu aadama maa kaane lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walaw kaana uli qurba min baadi ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim